leen nag jàmm ci xibaaru marax yi may am mbégte di ci feggoog Suzanne Deme Suzanne nuyu naa la. may lay fay bu baax Germaine Diouf nuyu itam ñuy teewlu. ci ñu dem ci li gën a fës. jukki li gën a fës si bopp xibaar yi ñu ci réewum Sénégal Bassirou Diomaye Faye ak naataangoom Emmanuel Macron ginnaaw rek ba mu ko rek owee ñu toog waxtaan ci añ gu ñu seq ponk yu bare bari daal dafay jukk ñi njëriñoo nag ñaari réew yooyee moo ko taxoon a jukk waaye nag bëgg nañu dugal loxo eh, lépp lu jëm eh, ci tam itam wàllum ñàkk gi euh, mbay mi euh, ba ci rek euh, li nga xam ne day gën a suqali wàllum démocratie addu jëmale ci baccalauréat atum 2024 jàppale ne épreuve technique yi tàmbali nañ ko ni ki tey ji ci alxames gi jëriñ bi gàlloo lépp jëm ci formation professionnelle di Amadou Moustapha Ndike Sare dem na ci yéen ci ay centre ci Ndakaaru xool mbir yéen mu tëddee Euh, ci rek lim tollu nañ ci euh, ñetti junni ak ñeenti téeméer ak fukk ak benn ci ay candidats yu bindu euh, ca lycée la Delafosse ñetti téeméer ak juróom fukki candidat tàmbali nañ nag examen wa ba juróom-ñaari waxtu jotee ci suba toftal fanweeri simili daal bu ñu sukkandikoo ci président jury bi amul lekk benn fitna woo xam ne nemmeeku nañ ko ni ki tey ci tëralinu examen bi addu jëmale ci leneen biir jëriñu yu gàllu lépp jëm ci wàllum tàggat yaram amal ak lël loolee nag ngir addu jëmale ci projet de loi bi nga xam ne ni bëgg nañ ko peccum ndawi réew ma ngir tëggaat lépp lu jëm euh, ci kott wu ñu jagleel tàggat yaram jàpp ne daal am na rëq-rëq yu baree bari yoo xam ne nekk na ca biir bu ñu sukkandikoo ci kàddu joriñ gi di Khady Diène gay bëgg na ci indi ay coppite léegi gën a fas bu leen taxaloo ñu faram fàcce daal leen nag yi Diomaye Faye ni ki tey daal dinay dajeek euh, njiitu réewu France foofe ca Paris mu doon guléet ñi gisee ginnaaw nag euh, ndaje la bu forum mondial bu nga xamante ne dañ ko jagleel defaraat ay vaccin ci diwaanu Afrique ñoom ñaari njiitu réew yooyu nag dogu nañ ne dinañ fexe daal ba lëkkaloo gi dox ci diggante Sénégal ak réewu France ñu gën ko ñaŋal ñu taas ko nag euh, ci loo xamante ne ku ne day jox sa moroom cër teg ci ko ne daal dina ci gis boppam bu baax waxtaan woowee nag jàpp leen ne ponk yuñ foo yëkki bari na waaye dugal loxo ci wàllum formation professionnelle ñu moom suñu bopp ci wàllum ñàkk mii rawatina ci itam mbay mi nekk na loo xam ne ñaari kilifa yi taxaw nañ ca waxtaan bëgg daal gën a yokkule nag li nga xam ne rek moo lëkkale ñaari réew yi waaye daal ku ci nekk gis ci boppam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 kii pour l'instant sécurité bi quand même aussi ñu ngi fii ñoom ñi leen nag ñu ngi ñaan bu baax a baax ngir rekk examen bi ñuy amal ñu daal di koy réussir ci jàmm Moussa Mané Euh, Moustapha Ndiek Sarré moom nag ni ki tey ci suba doxantu woon na ci centre yu bari fii ci Ndakaaru ngir xool ni examen boobu tàmbali. atum ren ñetti junni ak ñetti téeméer rek fukk ak benn ci ay ndongo ñoo bindu ci list yi tàmbali ko waaye daal am na ñoo xam ne daanaka ñëwuñu ci seen ay centre yu ñu amalee examen bi jëriñu ñu dénk wàll wi nag moom rafet rafetlu na bu baax tëralu na examen yi. fii ci Parcelles Assainies ñu ñëw euh, fekk nañ fi euh, surveillant yu doy. Euh, fekk nañ fi tamit organisation boo xam ne wax dëgg yàlla kenn mënu cee wax dara ndaxte ku yore examen bu amee solo ni examen formation professionnelle nga war cee mën a def énergie bi ci war pour er, examen bi jaar yoon. na ngeen jàpp rek ne ci Sénégal yëpp incha allah ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, examen toll nañu ci euh, ñetti junni ak ñeenti téeméer ak fukk ak benn te it nañu jàpp ne am na junni. ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk juróom-ñetti fukki jigéen loolu rek ndam la ndax jigéen ñi jàpp nañ ne seen taxawaay rafet na ci wàll formation professionnelle te bëgg nañu mu gën a rafet encore te li ñu bëgg tamit moom mooy bu ñu jógee fii dina ñu dem ci yeneen établissement dina ñuy dem ba yegg ba Thiès sax incha allah pour xool naka la organisation yi demee te fii ñu jóge daal am nañ ci satisfaction wax ci wàllum politique ak njiitu réew ma woon Macky Sall mi nga xamante ni ñamu lëkkaloon ñoo tàmbali di ko ŋàññ ci ay doxalin. bu sukkandikoo ci ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllum politique lu ko waral daal bokk na ci taxawaay yu jàpp ne daal moom la ñu turee mu woon taxawee ak candidat wu mu jiitaloon rawatina Amadou Ba mi lajj ci joŋante yi ñu wees. ñooñu bu ñu génnee tey jii di attaquer Macky Sall dafay firnde que ànduñu ak décision bu Macky Sall jël. dàq leen ñooy loolu ñooy ànduñu ci jege nañ ci APR mais ànduñu aussi ci taxawaayu Macky Sall ci gannaaw amadu Ba dañu tuumaale Macky Sall du euh, jàppalewul dëgg-dëgg Amadou Ba ñoom luñ ci seen gis-gis defet amadu Ba Macky Sall moo ko organisé ndax bañ jàppale amadu baax comme ni mu ko waroon euh, jàppale euh, soo xoolee amadu Ba daf ko limogé sax fekk élection bi lu ci desoon bariwul lool loolu pour ñoom seen gis-gis mooy que lu leen daax fekk Macky Sall jàppalewul Amadou Ba euh, Macky Sall dafa bokk ci défaite Amadou Ba dugul ko sabab défaite Amadou Ba Macky Sall ci euh, euh, bokk na ci ñoom defe naa tey ji su dee jël nañu seen responsabilité bay attaqué Macky lu muy firnde mooy que jóge nañu jóge nañu ci APR amatuñu benn confiance ci ci Macky ak ci APR léegi nag est-ce que Amadou Ba dina leen topp bon defe naa bu ñu xoolee APR en tout cas ni mu tëddee yaakaar Amadou Ba mu ngi ci loxo ñooñu. Yoro Dia taskatu xibaar la moom lañ dalaloon démba ci émission l'invité de MNF moom nag moo yoroon kàddu nguur gi fi jóge am na lu bari loo xamante ne waxtaanee na ko ci lu jëm ci wàllum politique ak koom-koom. jàkkaarloom ak MNF tax na ba mu yëkki ay kaddu ci yéen ci tànneef yu nguur gu yees yi jàpp nañ daal lu ci bare bari nag àndu ca aw jaara lañ ci àndal. mu doon intervenir ci plateau émission invité de MNF bu 7TV Yoro Dia di journaliste doonoon tamit jëwriñ bi yoroon kaddu njiitum réew mi mag Macky Sall moom nag nëbbul ay waxam mu jàkkaarloo présentatrice bi di may mën a Ndour Faye mu dal di ñaawlu taxawaayu élimaanu jëwriñ yi di am yaakaar ne président Diomaye Faye dina def askan wi di xaar ci moom.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 ça ils vont pas créer de la richesse mais ils vont tuer les créateurs de richesse. bu ñu sukkandikoo ci moom mi fi doonoon poids bu régime Macky Sall jàpp na ne patriotisme mënul am lu dul rek ne dafa jaar ci démocratie ak ci wàllu koom. la mooy souverainisme aujourd'hui li Sénégal def le mars mais c'est ça le souverainisme. Diomaye était en prison il est sorti il est parti aux élections les Sénégalais l'ont élu démocratiquement. et puis même si nous nous tous on est des mais est-ce que nous a envie que Ibrahim Traoré Assimi Goïta Mamadi Doumbouya des putschistes nous représentent non. ci intervention bi moom Yoro Dia wan na boppam bu baax a baax équipe bu yees bi jiite réew mi ndax nag ragalul benn yoon joxoñ baaraam yenn ci seeni tànneef ginnaaw weer yi nga xam ne def nañ ko ci bopp nguur gi lu ni mel nag di firndeel ni saa su ko mënee rekk dina génn wax ci jéego yi nguur gi di teg. Awa Diallo atum 2025 taux de croissance bu Sénégal dina egg euh, ci 10 virgule pour cent maanaam téeméer boo jël fukki poñ ak loo teg lu jëm ci inflation bi nag dina wàññeeku ba toll ci 2 pour ki ko xamle di chef mission FMI. buñ sukkandikoo nag ci xayma gi ci atum 2024 daanaka dafa rek toll ju téeméer boo jël juróom-ñaar ya tombal benn mu ko sukkandikoo ci la nga xam ne amoon nañ ko bu njëkk di téeméer boo jël juróom-ñett ya tombal ñett ne nañ daal loolee nag lañ jotagum ci wàllum koom nag ak mbir ya na mu taree nee daal daañu jéggi ci ak wàññeeku egg ci téeméer boo jël ñeent ya waaye mu ga nag dañoo yem rek ci téeméer boo jël ñett ya tombal juróom-ñeent pour 2024 ci at mu ñu ne muy bu ñuy xool yokku yokkute bi ci yeneen réewu Afrique yi gis nañu ni Sénégal am na yokkute goo xam ne dina toll ci 7.1 pour 2025 yokkute bi dina dem ba ëpp 10 pour loolu mooy woon ni que réew mi yokkute bi mu ngi ci yoon bu baax loolu yëpp bu ñu koy méngalee di ko saytu won na ni que réew mi mu ngi ci yoon wu am solo te loolu jar naa rafetlu. ñu egsi ci chronique bés bi moom ci Albert di euh, addu ci euh, li nga xamante ni euh, moom la waa FMI ak waa Banque mondiale di rek andi ci koom-koomu Sénégal. ñu bëri nag daanaka ñaan mi dëgërlaay yi nga xam ne daanaka day tax rek ba ñu mën a suqali réew mi ak xalaat yi nga xam ne daanaka teg nañu ko nañ ci ànd ak Momar Cissé li nga xam ne mooy fonds monétaire ak waa banque mondiale ñoom ay partenaires Sénégal lañu ay at a nii ñaari institutions yi nga xam nga ñooy liggéey ci wàllum koppar ñoom kat lu am solo la ci place bi nga xam ne mooy ci wàllum gestion maanaam sayto li nga xam ne mooy koppar àdduna bi yëpp. waaye ñu gis tamit rawate ci Sénégal ci posture bi nga xam ne am nañ ko suñu gouvernants yi ak suñu ay acteurs politiques yi ak ñi nga xam ñoo bokk société civile la ñoom lu leen amal solo la ci nga xam ne mooy ay recommandations ci ay ndénkaane ak loo xam kat wàllum xeltu la ci mooy li nga xam ne ñooy liggéey ci wàllum finance ci àdd bi yëpp waaye publication rapport yi nag moom ak statistique lu bëree bëri dañ koy xaar ndax gis nañ ni ñu bëree bëri ñu ngi koy amal confiance nag naam waaye lim ba nga xam ne moo tukkee ci FMI ak ci Banque mondiale waaye tamit ñu bëri dañuy wax ne kat lu wérte la ndax ñoom la ñuy joxe kat am na fu ñu ko teg ka waaye résultat yi nga xam ne moo tukkee ci ay études wala développement li nga xam ne moo ñel ci wàllum finance publique ñu bëree bëri itam dañ koy ngawti ngawtee ndax gis nañ ci ay guvernement am ñoo xam ne dañ naan lii d'accorduñ ci ñeneen kat ay expert la jël seen liggéey màcc ci wàllu woowee ne daal d'accord nañ ci ñoom gouvernement bi nag moom day fëgg da dem ne li nga xam ne kat mooy wàllum jaloore ci wàllum saytu koppar loole kat am na ci solo lool kon nag ñu bëri dañ ci daal di ami sikki sàkka ndax gis nañ ne la nga xam ne moom la gouvernement bi teg wala sax la muy jox askan wi wérul kon nag ci tàmbale ay at nii li nga xam ne kat moom lay dund ba léegi daanaka dara soppeeku ci naka la ñu mën a wax taanee ci li nga xam ne kat moom la ñu ngawti ngawtee ak bayit yoo xam ne ñooy labal koppar nguur gi ay statistiques yoo xam ne ma tukkee ci ay lim yoo xam ne kat amul fu mu sukkandiku kon nag loolu laaj bu samp la waaye li nga xam ne daal mooy sëy wutaas bii nga xam ne am na ñoo xam ne jàpp nañ ne fekkee ne lii la ñu bëgg liggéey moom du baax waaye modèle ba nga xam ne mooy wàllum économique ci ni dëkk bi doxee loole daal baaxul kon tamit foog ñu daal di indi coppite coppite yoo xam ne dañ koy jaarale ci loo xam kat ci gëm-gëmu askan wi kon tamit wàllum sous développement amit wàllum ndóol ak li nga xam ne ñàkk tollal ci askan wi ak li nga xam ne tamit mooy wàllum ger loole day yàq dëgg-dëgg wàllum gouvernance kon tam jot na FMI ak banque mondiale ñu war a dakkal modèle yi nga xam ne moom lañ joxe tey tey sukkandiku ci ay réalité sociale yoo xam ne dëkk bu ci nekk daal am na loo xam ne kat moo la ñeel waa aftu ñu ngi dalal xelu askan wi ci seen chauffeur yi nga xamante ni dañuy faral di njëkkante loole di jur lorange ne nañ daal képp amat ci boobu la xeetu doxalin dinañ la ajandi ci sa liggéey wala sax ñu daal di tàgg ak yow. Tibi Ndiaye bokk ci kuréel googee nga xam ne daanaka aftu moo ko daal di ëmb nag am nay jàqare ci rek mën woon ak jëruñ gi nga xam ne moom lañ gàlluwaal wi. ñun sant ñu kenn mu course ce qu'on appelle la course poursuite sant ñu ko benn conducteur te kuñ ñu jàpp dañ lay teg ci ay daa am na daanu ñuy teg wax leen ne leen ñun dañu leen jox ay bus teg leen ci ay ligne fix am ay intervalle c'est-à-dire bus bu départ day def dix minutes beneen bus départ donc course warul am foofu am na kon kuy rey temps pour moromam jot ko wala pour rey temps pour mën a am gën a ba tax muy am ay course poursuite mais li ñuy wax daal di ko signaler encore une fois mooy sant ñu ko benn conducteur te kuñ ci jàpp ko ne dañu teg ay sanctions yoo xam ne di am na commission disciplinaire bu koy buy suivre loolu di nga fay xaalis non seulement mais mën nañ la sax yóbbu commission. mais dañu am ministère des transports boo xam ne du jóg ci ay problème transport pour di ci wax bala mu cee jóg accident dafa am bala mu cee jóg dafa am événement bu xew mais ministère de transports dañ koo fal dañ ko nommé ministre des transports dañ koo nommé pour tous les jours muy xëy di gont ci transport te loolu lañ amagul nag un boo xam ne day réfléchir. mas mas nga fi dégg colloque le transport wala état général sur le transport wala assise non te transport dafa nekk un secteur vital économique transversal boo xam ne dañ koy war a jox un ministre plein boo xam ne vraiment day xëy di gond ci transport di ci wax di ci def di ci jëf. jëwriñ ngi ñoo dénk wàllum tàggat yaram ni kay tey la daal di jiite ab lol loole ñeel avant projet de loi nga xamante ni kon moo tënku ci euh, lépp lu jëm ci tàggat yaram mel ni nag li ko tax a jóg mooy euh, yeesalaat nag yoon wi tënk bépp activité ñeel tàggat yaram. jërëjëf gii di Khady Diène Gaye jàpp ne daal cot bi am na rëq-rëq yu fa nekk war ko jubbanti te loolu nag daal ci def kéem tolluwaay kattanam. joriñ bi ñu denk wàllub tàggat yaram engagé na li nga xam ne moo di cadre juridique bu ñeel bépp activité bu soxal tàggat yaram. Khady Diène Gaye jiite na li nga xam ne moo di atelier de partage avant projet bi nga xam ne moo ñeel saytu bi ñu war a indi ci tàggat yaram bu Sénégal. dañu fi daje li nga xamante ne moom la ñuy wax avant projet de loi portant code du sport ñu tuddee ko la loi sur les activités physiques et sportives loi bi nara tënk lépp li nga xamante ne lu jëm ci la pratique sportive fii nii ci Sénégal processus bi nag biñ ko tàmbalee ak léegi ëpp na fukki at ndaje bi nag dafa bokk ci wéyal activité yi nga xam ne tàmbali nañ ko ngir indi ay coppite ci secteur boobu nga xam ne bëri na ay mutation foog ñu indi ay coppite ci yoon bi nga xamante ne mboolem acteur du secteur du sport ci la tonk pour doxal wàllam pour doxal liggéeyam 2013 tàmbali woon na waaye yeggut woon ñun tamit ba ñu xamante ne dënk nañu lenge yi teg ñu ci kaw boppu département des sports bi ñu daal di koy jël ñun action bi nii duggal ko ci suñu plan d'action sectoriel. liñ ci jublu nekk moo di fexe ba loi bu bees bi mën a méngoog jamono. boo jëlee aspect yu bëree bëri lu ci mel ni professionnalisation bi lu ci mel ni financement bi lu ci mel ni doppage bi digitalisation bi nga xamante ne loolu kenn mënatu ko bàyyi gannaaw bu ñu fi génnee tey dinañu jël bu soobee yàlla document bi daal di koy synthétiser waat xoolaat ko relire ko. avant ñuy àgg ca pencum ndaw réew mi ca assemblée nationale. bu ñu sukkandikoo ci Khady Diène Gaye loi 84 59 nga xam ne moo tënk lépp luy tàggat yaram fii ci Sénégal dafa rek wane ay limitam kon nag faw ñu saytu ko mën na indi ay coppite ci texte yi nga xam ne moom mooy doxal tàggat yaram fii ci Sénégal. ni ko jaajëfal moom Matar Bari di leen jaajëfal yéen lu baax a baax ci seen teewla ak seen kóolute fi dañuy yem ak yéen ci la jotaayu xibaar si dem may am mbégte doon ci li tam ñu doon teewlu. xibaar yi ci kanam la ñuy dellu si bu juróom-ñetti waxtu jotee ma di ci feggoog Tabara Diop léegi-léegi Amadou Awa Ndiaye ngeen àndal ak ganu 7TV Soir ñu di ci dalal docteur Mbarké Dia bokk ci AFP booy leen di ñu seetaan